ku la bañ na bañaale ndax ñun ñaar bañ na ma ñun ñaar ñooy àndandoo man mënoon naa ñëw ma bañ jabar ji bañ ma Samba Peuzé Samba Peuzé léegi moom ñoonu dugg na si coow li nee na moom ku bañ jabar ji na ko bañaale ndax asalaamaaleykum sama waa ay bégee naa leen j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax a baax sama gars yi tey on va faire une vidéo sur le clip de Samba Peuzé série dawalal ay dawalal bi dafa neex dara daaxul nga def sa clip woo sa jabar sa propre jabar si clip bi wax ko say sa xetu mbëggeel fi nga toll si moom ñëpp kontaan si gars yi balaa vidéo di commencé merci d'aimer la vidéo abonnez-vous bu leen fàtte yéen ñu jéemoon si bet sama promo code 21 avril ça veut dire di nga am cent cinquante six mille francs lien bi naa si commande non du ma leen fàttee ñaanal nag sama gars yi yàlla leen yàlla jàmm ju bëree bëri ak xaalis bu bëree bëri bëri amin sama gars yi naka la Sama Peuzzi ndam na jabar ji dégg ngeen li Sama Peuzzi wax jabar ji yëpp si clip bi non c'est fort c'est fort dañuy commencé ñu xool benn par benn ñoo ngeen déglu non di ngeen xam ne Sama Peuzzi naka la ndam na jëy naa jaaw mi ciy mbëggeel mbëggeel ku ko dundul xamoo ko barki alxuraan benn par benn clip bi c'est au top barki alxuraan li may yëg si xol wi du tàng waaw kel dëkk xol du fin sama pesi nena jabar ji li yek yëg si xol bi du deñ mbëggeel dëgg xol du fen te loolu dëgg la loolu la ko jëkk a bàqee su la tooñee nag ma après mu ko la toñé nang ma bal nak bima ñepp folé ya ma fal lolou dawna yaram la laa ilaaha ya la def ñu yegg si tey kon dum après mu ne ko yàlla def fi ñu yegg si tey du ma bàyyi lu lu mu metti metti lu mu metti metti moom maanaam mbëggeel bi fu mu lu mu metti metti coono yu ñu ah, du musa a bàyyi ndax bi mu folle ndax bi ko ñëpp follee kon sàmm pasi am na ñu ko folli woon ok kon waroti ndax doo tawwee gis ma ci sawwee na Dieyna Diaw jabar ji nee na ko ah waroo tiit ndax maa ngi ci sa wet waaw loolu loolu la ko wax ndeysaan mbëggeel daal fi waroo tiit daal fii maa ci sa wet waroo bul jaaxle après ñu xool kenn du la jam naa ni si le maa ngi ni ma lay eh, lii de koo nobul doo ko wax mu ne ko kenn du la jam naa di xoolal gilet par bal maa ngi nii maa lay aar xam nga luy gilet par bal maanaam bal gilet sama pause nee moy mooy par pare jabar ji li li neex na ak yalla ñu si so wet life on nancy lu mu gori gori ben ak ma xaar si so wet life fanaan si loolu mii ñëpp nga xam xam ngeen ko lu mu guddi guddi sama pause nee day ñibbi ci kërëm manam mom bu taxawal jé bu démé défé ay som nek ci ay concertam am lu guddi guddi dina ñibbi ci waaw. ci waaw. nga wax bëggé bëgg na loolu neexna kay jégué ma nga wax ma séeri bo bëgg bo bëggé bëgg na mu ne ko bo bëggul bëgg ma <laughs> bo bëggul bëgg ma loolu dara gënu ko for jégué ma waaw wax ma bo bëggé bëgg na bo bëggé bëgg na bo bëggul bëgg ma après mu ne ko dawalan eh dawalal yaatee wala mi bul ta xaw dawalan mais ci clip bi nii Samba Peuzzi li mu wax euh, jabar ji na ko yaa téye volant bi dawalal mun na ko jox oto bi mu dawal comme mu téye volant bi dawal wala bi Samba Peuzzi nekkee ci clip bi tëdd ci kaw oto bi jabar ji moo doon dawal kon jéy naa li ngay dawal amul. ay dawalal. waaw bébé bi bul taxaw dawalal. bi rafet na. clip bi rafet na rafet na rafet na. xamul ñoom ñaar ñu ngi nii bëggante def seen clip lii c'est beau ñu xool lan la ko baaxaat. day métti rek waaye ñun ñaar ñooy àndandoo. loolu ñëpp xam nañ ko day metti rek waaye ñoom ñaar ñooy ñooy ñooy àndandoo. ku bañ na bañ na ma bañaale ndax ñun ñaar ñooy àndandoo loolu loolu dara gënu koo foor comme man mënoon naa ñëw ma bañ jabar ji te bañu ma Samba Peuzé Samba Peuzé léegi moom ñoo dugg na si cool yi. nee mom ku bañ jabar ji nako bañale ndax ñom ñaar ñoy andando deglu leen lim ko bakkat fi jabar ji na ko <laughs> lii dafa neex waaye lii dafa neex jabar ji nako xol lim lim ko tegal fi lim lim lim ko ñew tegal fi wax ko fi non c'est c'est ça lii ko bëggul munoo ko wax munoo ko man jàpp naa la yëkkati la ba nit yëpp xam ni yow la sama xol bi yaa ko tàmm di ko bëggee noo ko bëggee yaa ko fa am danga ma jege yokku mandam mi de yi dema mën naa la jàpp yëkkati la ba ma jege yokku ma mi de yi dema jabañu na ko naa waaye neex na kay jégué ma nga wax ma sir bo bëggé bëgg na jabar mo ci dal manam ko xamanteni sa jëkkeur ñëw na na la manam assumé na devant tout le monde wax ay waxam ne yow manam lu la neex neex na ma lu la neexul neexuma ma ku la bañ na ma bañaale ba paré clip bi sa yoo topp yow jégué ma kay wax ma bo bëggé bëgg naa gàttee volant bi dawalal mais sama pose dafa waroon jox jabar ji fii si oto bi nii mu dawal mu dawal di kii mu jàkkaarloog moom nan ko dawalal dawal mais xam naa bi mu ci kaw oto bi jabar ji moo doon dawal kon Dieyna mën nga dawal Dieyna li ngay dawal amul ak sëñ Bamba yéen ñaar yàlla na leen yàlla defal jàmm xam nga bëggante ngeen lii dafa neex xam naa fan sama pose yi kontaan nañu moom benn question ma leen laaj photo bii nii fara bi ni nek ci ginaaw ni kan mo ci jeena jaaw budé 1 nga wax 1 la budé 2 nga wax 2 fon sampozi deug dina xam kan, kan kan mo ci jeena jaaw man ma wax kan la wala <laughs> sama gaay merci de la vidéo abonnez-vous dama sétane clip bi clip bi neex ma mo contenté ma ni fokh ma def ci vidéo